te jii léegi nii boobu juróom-benn waxtu des na fukki minute fukki minute ak juróom doyen de juges bu tribunal grande instance bu dakaar on suma client Seydina Fall Bougazeli ancien député sore na bërki démb ci bureau bi mu ñëwee ànd ak man ak maître Seydou Diagne xamal na ko ni am na tuuma yu jóge ci procureur mi nga xam ne mooy chefu enquête bi bu ni topp nañ la ci mbiru ànd mooy association des malfaiteurs pour def ay njaaxum ak pour nekk ci ay xaalis boo xam ne du xaalis bu baax ak di jéem a seet noo gere ay nit loolu nag dañ ko ko tuumaal waaye neewuñ ko yaa ko def neewuñ ko yaa ko def mais luñ ko tuumaal la mu ko man xaw ma ndax yaa def wala defoo waaye dama lay téye te ndege ndeku parce que bu ma la bàyyi léegi mën na coow ci dëkk bi mooy dañaa lu tax ñu téye ko tax ñu bàyyi koo téye coow li bëri na mu ne ko dama lay téyegum gëstu seet liñ la waxal ndax dëgg la walla sos la yow nag yaa may tontu danaa la owaal beneen yoon pour déglu la nga tontu ma ba ma xam ndax war naa la bàyyi wala waru balaa bàyyi ndax yoon moo ni képp ku ñu jàpp tout tuumaal la li gën a garaaw même rey nit yoon nee na defoo goo ko mooy présomption d'innocence duñ ne yaa coupable donc yaa ko def tant que wuñ la atte bu mujj nga dem ba cour suprême wala ngay def appel mais tant que atte wuñ la atte bu jeex takk lépp luñ la waxal yoon nee na loolu wax rek la waaye mën nga taxaw défendre sa bopp ba génn ci loolu. am na ay information yu wax ni est-ce que loolu moom yàgg na waxatuñ loolu. am na ay information yu wax ne euh, sa client da doon jëm a guerre gendarme yi euh, proposé leen 10 millions pour ñu mën a euh, dossier mën faa yem. loolu yëguma ko xawma ci dara si nee naa leen bu leen compté ci man bu leen ma yaakaar man pour xam li gën a tuuti ci dossier bi ndax xam ngeen instruction dafa laaj secret la nekk ci biir dossier bi. journaliste yi gën a dañ kumpa waaye bu leen yaakaar ne man naa leen dimbale da ngeen xam ci dara dara dara dara ngeen ci lu xam. waaw dañ ko toppee da ngeen toppee ñoom dañoo àndoon bok di def ay giraawaal yi xam ne loolu mooy association de malfaiteurs beneen bi ay mbiru xaalis boo xam ne du xaalis bu baax bi ci des ay ger mooy corruption. waaw. waaw léegi yéen seen seen stratégie la ngeen ah taxawaayu avocat rek mooy ki xam ni ku jaaxle sa xel dem ci moom moom it mu def kenn tolluwaay kattanam ba ah bu la mënee dimbali ci kattanu yàlla nga mën a dellu sa njaboot mën a liggéeyal sa réew mën a tekki sa gox. mais am nga yaakaar ne dossier dina yomb ah non rëbës la rëbës mooy mooy mooy prison bi. xam nga ne na xëy na comme feebar na mën nañu ko yóbbu. ndax loolu spécialement pour feebar la comme feebar na mën naa mel yóbbu ko foofu waaye loolu mënu ma ko parce que du mën naa ko yóbbu. dossier bi dina yomb benn méttiwul ci avocat yombul ci avocat. añ reer ndekki mën na metti ko mën na neex mën nga tiim ceeb bi ceeb bi neexul waaye di nga añ mën nga tiim reer bi reer bi neexul waaye di nga reer mën nga tiim reer bi gisaani neex lool nga lekk. alors meleste ko mu neex dossier avocat moom noonu la dossier bu rëy rëy garaaw nga ci dugg am ci ndam lu rëy rëy pourtant métti woon na waaye yàlla def ci jàmm rek mu neex lool. règlement 5 UEMOA yéen yéen a ngi ko doon kaas tout le temps cette fois ci respecté nañu ko. ah oui léegi nag nañu nañu dëgg waaye gendarme yëpp policier yëpp Sénégal yëpp kenn ñimetul tooñ yoon ba oo nit nee ko am nga droit avocat bala ngay wax loolu moom ba ma nekk assemblée laa ko fa saxal dëggal ko ndax UEMOA la jógee woon Sénégal ñàkkal ko fayda waaye defe naa xeexoon naa ko ci li ma gën a mën a ndamoo la bi ma nekkee député en tant que avocat yelleefu avocat fexe naa ba mu delloosi ci awoka yi mooy awoka client am kenn amul droit noot ko wala jaay ko doole wala di ko napp di ko xooxatal ndax bala ñu koy laaj dara day toog te boo amee avocat sawet kenn du la xooxatal bu dee avocat ba am fulla la defe naa avocat yëpp am fulla mu nekk moom jamono yi mi ngi ci. waaw non génn na ma ci kaaf bi génn na bureau juge bi. waaye dana fanaane tey rëbës incha allah rabbi. ah mais moom moom moom gaynde la mooy le lion de Guédiawaye moom jàmbaar la mën nañ koo waxal ne waaye nag dëgg-dëgg borom fit la alors nag donc bu kenn yaakaar ci moom muy saalit wala muy def leneen lu noonu ah xëy na ko wax yéen ñi xam ne avocat ngeen ak ñi nga xam ne ñoom ñooy enquêteurs yi ñoom yéen léegi lépp ngeen man de yëguma ko dinuma ko damay toog dégg rek ñuy wax Sénégal moo garaaw